Olha lá, olha lá, olha lá. Come on, boy. Round the boat. Jump, jump, jump! Yok bunlar, yok bunlar, yok bunlar. ايه حجر جلال جلال جلال دانك نك Belangrijk, Amburek, Amburek. Voilà, leve Ousmane, leve Ousmane. شغل لك شغل لك يا بابا اجو اجو اجو مدام مدام اجل اجلك

daal ñu gérer tankon tankon tankon عايزه jël leen Imani. Coup d'envoi bi ba nga seetaan résumé ba xam Wow! Dạ,

benn ci moom benn rek benn rek mbay jamal bii la de bii la de doole bu dugg Bak na gay, jëf jëf boy. ñaar ñi ñaar ñi eh maam maam maam maam Diop. Jangan sekarang bisa. jalan bunu Jalan Bunlar jalan bandı man bu yóbbaatee kii lim bi jeex na lim bi